nañu préciser ne que suñu borom ginnaw bi mu len modéré dans toutes les grandes religions révélées euh, si tawret bu yent yalla Moussa injin bu yonent yàlla Insa alxuraanul karim terewul nak daf ko encadrer ko encadrer du du du du ku jóg rek bëgg def sa justice su daf ko encadrer dafa ni pendant qu'ils sont en vie te té bokk ak yéen penc bi bokk ak mener euh, euh, une vie euh, dans votre communauté mën ngeen leen mën ngeen de différentes façons bu leen neexee ngeen boycotté c'est un commerçant réputé être homosexuel nga boycotté ba ñu jënd marchandise sax ci moom ku dëkk ci koñ bi sax te nekk ci mbir yu yooyu bu sax bu donc mais pendant qu'ils sont en vie le chariot waaye waxul fenn ne bu ñu dee na ngeen leen sulli taal leen loolu du diine du aada kon waa xale Kaolack la ñuy def njuumte gu rëy la suñu borom nag dolli na ci sax ne bu ñu génnee àdduna pour bañ leen a jox daraja pour bañ leen a jox importance euh, farataaluñu ku am cër bu mag ci umma islamique bi di leen jullee que euh, chariatul déconseille euh, déconseil imam Ratibi bi lu imam Ratibi ou wala euh, ni ni ci en tout cas am ndombal tank, am cër ci umma islamique ngay jité fu ñuy jullee góor jigéen waxul ne bu ko na ngeen si communauté bi ki ci gëna ku ci ordinaire ku melni ni borom bu bi koku mën

dont bénéficie cette communauté-là. Moi, moo ñu koy dajale seen dënn mer mi dajale ba xëy explosé mooy mooy Donc, encore une fois qui est rafetlu ko du yoon du l'islam du Ada, et c'est une c'est en porte-à-faux avec les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale parce que le code pénal dafa ne kenn rek cinq am sañ cadavres. Moi, cadavre mooy bu que crime dafa am fekk suul nañu waa ji ba noppi werante am ñu ne non pas que la ko jam ñi ne doole daf ko dóor kuur ñu noonu dafa tiire bal procureur rek moo am sañ-sañ xaatim benn kayit mu di ordre d'exhumation pour des besoins d'autopsie à part moom keneen ku fekk nit ñu suul ko nga sulli ko. yoon dal sa kaw kon sa kaw.